asalaamaaleykum sëñ Ousseynou maa ngi lay nuyu di nuyu internet 24 actu yëpp euh, tout d'abord di baalu ak àdduna rawatina dëkk bu sell bi ñu nekk di nuyu ku baax ki ku tedd ki muy Serigne Mountakha di koy ndokkale si weeru koor yi di koy ñaanal mu yàgg fi te naka noonu di nuyu Serigne Cheikh Jëmm Fall di koy siyaare bu baax Fall Ndiaga di koy ñaanal yàlla defal ko tawfeex mu yàgg fi lool suñu kanam te di ñaanal mbokk taalibe yëpp si li nga xamante ni mooy weeru tedd wi ñu nekk di leen di ñaanal ji leen di félicité di leen di encouragé yéen tamit si liggéey bu sell bi nga xamante ni yéen a ngi ci euh, te euh, saa su ne ngeen di fësal xam-xam ak xereñteef gi nga xamante ni moo tax ngeen euh, sawar toujours di xeeñtu li nga xamante ni mooy mbas bi fi mu toll su ma ko déggee ni nga ko waxee. donc jànkat biñ si am nag mooy jàngat boo xam ne ni bu positif lay doon euh, bu positif dans la mesure bu buñ xoolee Touba fa mu jóge ba fi mu toll si kaa yi yàlla mi ngi ñu si suturaal ba liñ ci dégg si ñoo xam ne ni wàññeeku nañ si àdduna bariwul yaakaar naa benn la laa si euh, déggagum donc loolu nag dafay firndeel ne euh, am na foo xam ne ni fa la taxawaay bi am oo bu weesoo loolu noonu tamit ñëpp ñi nga xamante nii dal na leen di leen ñaanal ñu wér ba tane ba delluwaat seen ak njaboot tamit nekkuñu ay cas yoo xam ne ni eh, cas eh, cas grave lan maanaam nekkut ña nga xamante ni vraiment feebar bi sonal na leen trop kon donc lool tamit dafay day doon loo xam ne dañ ci sant bu baax a baax su weesoo loolu noonu tamit boo xoolee ci prise en charge bi nga xamante ni. moom la euh, autorité yi nga xamante ñoo ŋànk wàll woowu noonu nekk ci tamit ñu ngi siy def lu nu mën waaye li olof ji wax daanu euh, euh, daanu liiwul dajul suuf donc moo tax mais jàngat bi daal c'est comme bu ma répondre sa question mooy jàngat bu positif lan si am jaajëf waaw mhm. am waaw loolu dañ koy dañ koy dañ koy natt rek ci dundinu askan bi ndax bu fekkee ne ginnaaw ndogalu yàlla bu fekkee ne <coughs> Touba dafa tàmbali amoon ay cas euh, ñu koy xeex di koy xeex ba euh, ñu ne cas yi fi nekkoon Touba yépp jeex na hmm? ñu teg ci 24 heures au au maximum 48 heures ñu ne am nañ cas communautaire euh, dag koy xaaj ñaari xaaj benn bi da koy xaaj ngir ndogalu yàlla mais beneen bi nga xaaj ko ngir jikkooy doomu aadama te loolu lépp bu àndee nag dan nga liñ ci mën a regrouper rek mooy gën a dolli sensibilisation bi gën a dolli euh, euh, mesure de barrière yi nga xamante ni saa su ne ñu dégtal ñu ko tey kenn ku si nekk si ñun war a jël loolu noonu def ko ngànnaay comme yéen nii ngeen nekkee si wàllu média bi xam ne mooy seen jumtukaayu xeex coronavirus bi ngeen di dem si ñi nga xamante ni c'est des personne censée de communiquer ou bien de sensibiliser les, les, la population ngeen dem euh, dépp leen seen micro ñu mën a faram-fàcce loolu kon donc cas communautaire yi na ko kenn ku si nekk si ñun xam ne doon na la nga xamante ni sa xeexu bopp lay doon donc bu fekkoon ne xëy na digtal na wala tënku na ci ndi tegtal yi ak tere yi nga xamante ni jàppoon nañ ko ne buñ ko defee yàlla musal ñu si kon ba léegi nii kon Touba dootul amati kaa mais nag xëy na nit ñi bokkuñu dundin bokkuñu gisin te kenn ku si nekk xëy na di nga toll foo xam ne sa mën-mënu bopp ngay demee ba yàlla dogal cas communautaire yi ñëwaat Touba ba jamono jii nii ñu tollaat ci fin ñu ci si situation Covid bi. waaw bien sûr xam nga loolu ci àdduna bi yëpp la euh, mooy euh, ñëpp mënuñoo maasandoo euh, euh, donte loolu mooy objectif bi dëpp ci benn tegtal maanaam dëpp ci lenn li nga xamante mooy lii bi du ñàkk ñenn ña nga xamante ni ñi sant Jóob sax laa ko mën a wooyee ñu am na nu taxawee mais terewul tamit da ngay xam ne ñooñu da ngay koy xaajaat ne xëy na seen gis-gis moo gàtt walla seen xam-xam moo fa eggul mais tax na peut-être ñoom tamit ñu am neneen nu doxale mais comme bu ñëwee si fi nga xamante ni mooy suñu wàll ñun en tant que agent de santé en tant que collaborateur en pharmacie suñu wàll euh, Covid bi dafay fekk ñu ñu koy ñu koy doxal mooy sensibilisation àlakuli alin foofu lan doon nekk mooy suñu credo mooy orienté sensibiliser donc bi Covid bi ñëwee tamit danoo gën a renforcer capacité yooyu noonu ba telle sorte ko patient bu dugg si au niveau des structures ah ak fu mën a nekk la nga fay jëlee mooy tawfeex la nga fay jëlee mooy xam-xam la nga fay jëlee mooy nan ngay mën a def ba dëgg-dëgg lii ji Covid 19 bi nga mën see mucc muccaaleel si sa askan. te muccaaleel sa askan nag mi commencé si yow ak mbokk taalibe yi nga xam yëpp rawatina seen waa kër ak sa famille ak ñooñ noonu. kon donc sensibilisation boobu noonu duñ si taay duñ si lii dante nag di di nga gis ña nga xamante ni xëy na sooy waxee ñoom ñu jàppee ko neneen ak neneen ak neneen ba am nun taxawee si yow. ba mu jaral leen ñu bañ a dugg ci pharmacie wala ba mu jaral leen ñu bañ a euh, jënd lan bëggoon a jënd claqué porte dem mais du tere tamit aussi ni muy amee ñu mel noonu lay amee ñoo xam ne ni tamit aussi euh, dañuy ñëw macha allah la leen wax ñu ne ah tey de laa xam lii bon kon de fas yéene naa wóoyee ci comme ba ci port de masque yi ñuy def da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw au niveau de la pharmacie euh, ñu ne la ah bala ngaa dugg ci pharmacie bi kat il faut nga takk masque. mais am na ñaa xamante ni dañ koy gisee gisee bu rafet ba dañuy wax ne ah ndax fii am na ñuy jaay masque malheureusement ñun amuñu ko euh, amatuñ ko mais tu tere si euh, lii bi dina am ñu koy jaay ñu dem jënd masque mu jaral leen ñu retourné waat ñëw euh, faj seen aaju si pharmacie delluwaat mais loolu lépp tamit aussi dafay tax tamit aussi ne bul gis ne rek kii mu deful kër da da dangay da ngay découragé wala da ngay bàyyi donte am na ña nga xamante ni ba léegi ñi ngi si naka sudu noonu mais du tere nga sensibiliser leen ba ñu mën a xam ne wax dëgg fa yàlla feebar bi ñun ñëpp a koy xeexandoo mhm. Mhm. Mhm. waaw mooy euh, réseaux sociaux yi xam nga des fois liberté d'expression wala euh, noonu laa ko mën a waxee ci euh, français mais mais coobare wax sa xalaat wala sa gis-gis terewuñu ko ba tax na léeg-léeg nit ñi dem ci abusé wu mais mbir dina toll foo xam ne ni ci ci ci situation euh, du ñëpp a war a wax yaa gis dafa am ñoo xam ne danoo war a wax am ñoo xam ne danoo war a jëf am ñoo xam ne danoo war a boole wax ak jëf léegi nag fii ñu toll ci situation bi dafa am ña nga xamante ni ñoom ñoo war a wax am ña nga xamante ni danoo war a jëf am ñoo xam ne danoo war a boole ñaar yépp léegi nag ci Touba nag dëgg-dëgg mën na noo jàpp ne bu doonoon cent pour cent 90 pour cent yi wala 99 pour cent yépp tënku nañ ci loolu ngir sëriñ Mountakha tënk nañ ci loolu ngir di ndigal tënk nañ ci loolu ngir xam ne lii dëgg-dëgg saa su ne ñuy dégg turu Touba ci euh, résultat yi ñu am naqari na leen ba ñu jaral leen ñu gën a am pësteef ak pas-pas ci sensibilisation bi du doon rek à titre personnel comme ñun en tant que agent de santé mais des citoyens lambda et je peux prendre des exemples sur vous yéen li di def nii déjà yéen a ngi ci loolu kon donc sensibilisation bi bu kenn jàpp ne kii la walla kee la mais nag da ngay xam li ngay wax xam fa koy waxe ñu wax loola nga mën a wax ñu ñu lii comme ni ko maam Cheikh Rafal waxee mooy juróomi ponk yooyu noonu mhm. waa message bi moom mooy euh, d'abord ñëpp def ko seen combat euh, nekk ci di ñaan yàlla nag mu ñu dem ba koy fàttaliku euh, si jàmm ak salaam te ñëpp tamit aussi jëlaat pas-pas jëlaat référence si li nga xamante ni mu Mountakha def na ko si zahir ak si baatin donc loolu rek dafa doy sëkk en tant que mouride en tant que croyant nga ne kii mooy sama kilifa def na nàngam kon donc yow yoon daf laa tënk diine daf laa tënk xam-xam daf laa tënk gis-gis daf laa tënk ngay jëfe beneen dogal bu dëppoo bu dëppoo ak bi nga xamante mooy bëgg-bëggu sëriñ bi ngir sëriñ bi moo nañu euh, jaam leen yàlla te topp tegtal yi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy docteurs yi dicté nañ ko ñu ñu war nanoo refere ñaar yëpp muy diine ak jamono nanu jàng alxuraan nanu tuub nanu euh, sàkk sarax mais aussi terewul geste de barrière yi nga xamante ni moom lañ fi teg tamit aussi si wàllu docteur ñu mën koo respecté bu baax a baax lool daal mooy sensibilisation bi incha allah jërëjëf alhamdulilah merci beaucoup. Euh, am ni euh,